salli ala al-muqaddami fi hurmati muqaddimi xayri rasuli wa nabi wa sahbihi wa sallim wa rahmatullahi taala wa barakaatuh mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bi ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp bàyyi ñu kenn kenn di ñaan si borom doon fa leen tawfeex baax a baax a baax di nuyu waa koñ bi ñëpp ñëpp képp kuy dégg suñu kàddu kàddu di sant suñu borom di sant ñëpp ñëpp di ñaan suñu borom bu liggéey gi nga xam ne moom la ñu sóobu def ko daaw ak ren ren ñaan suñu borom sax sax ba faw lépp lépp fa ñu ko andi sëriñ bi ñu sax sax faw faw ginnaaw loolu nag comme ni ko sëriñ Aliou day waxee léegi sëriñ xarit Ndiaye tasawuf mooy def waxtaan man nag xam naa dama ci dugal may def ma ci sànni saa tuuti rek pour ubbil ko waaye du caagaan man maay def waxtaan waaye eh, lii ngeen taxawal muy cant cant lu am solo la muy sant sant ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne afdalu du'a laa ilaaha illallaah afdalu du'a alhamdulilah maanaam ñaan gi gën ci ñaan mooy alhamdulilah mooy sant sant yàlla ndax li suñu borom wax ne la in shakartum la azidannakum saa bu ngeen santee man suñu borom dinaa leen dool te suñu borom suñu xoolee ci alxuraan néew la wax leen ay sant kat kon sant sant maanaam sant suñu borom garab garab kawe kawe kawe ni ma koy faral di waxee ndax rawatina nga sant suñu borom jaarale ko ci biir Sëriñ Tuuba loolu nekkati beneen beneen direct ndax ni ma ko doon waxee ci léegi ci kaw jëf jëf nga jëf jëf te jaaree ko ci biir Sëriñ Tuubaa ji nga jëf jaaree ko ci Sëriñ Tuubaa ñaari bokkut la ndax jëf ji mën naa bañ aw yoon na ko bëgg dëgg dëgg suñ borom pour Sëriñ Tuubaa tax nangu sa jëf sa jëf ndax dañuy wax ni wax ni euh, rek liggéeyal ko moom jaamu yàlla juróom juróom fukki nga toll 60 ans rawatina Sëriñ Tuubaa kon loolu liggéeyal ko sant sa borom jaaree ko ci biir liggéey Sëriñ Tuubaa am ndax eh, wax na ko léegi fa kul man xaddamani aw zaara xam na ci wax wax na aw zaara képp ku ma liggéeyal eh, wala mu siyaare ma daal ko jéggal ay bakkaar waaw liggéeyal ko moom ci la lépp nekk ndax moom sëñ bi daan wax ne ki raw ci man man raw kon képp koo xamante bi moo la gën a xëy sëñ moo la gën a bëgg sëñ bi gën laa topp ci ay ndigalam gën laa daw ay tere moo la doon ci sëriñ sëriñ moo la ndax ndax yàlla mi sàkk jaam bi ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ci jaam ak sëriñ Tuubaa bi liggéey yonent bi sallallahu ñi ñoo bokk lu ñu bëgg ñoo bokk lu ñu bañ ko ci am gërëm gërëm gërëm ñi ci ñaari ñaari ñëpp soo amee gërëmul sëriñ am nga gërëm yonent bi sallallahu yàlla soo amee gërëmul yàlla am nga gërëm gërëm yonent bi sallallahu alayhi wa kon kon loolu nekk na lu am solo kon suñ ci nekkee nag war nañoo defaruwaat bu baax li ma koy faral di wax defar pas-pas yi defar yéene yi ba nga xam ne jëf ji dina sell ngir jëf si borom ndax jëpp jëf jëf jëf nit jëf ak lu mu a rëy même su fekkee pepp suuf yëpp dafa nekk muus nekk or de sar sar yoon yàlla te yàlla taxul du dara moo tax suñu borom di wax wax ñeefari ëllëg la leen wa xaddimnaa ilaa maa amilu min amalin faja'alnaahu habaa'an mansuuraa ñi nga xamante ni nekkuñu ci lislaam lañ jëf lépp su ëllëgee suñu borom dana leen da koy jël ba nekk mënta nekk nekk dara nekk dara ndax awuñu fu ñu mën a aw mi ngi mel ni nga yor saw fas yafal bam jàmbaar loo mën a daw course bi jot fas yi daw aw fii fii mu daw fële fas woowu lu mu gaaw gaaw gaaw mu daw doonte zéro lay loolu mooy jëf jëf seetlu wala jëf yàlla taxul loolu mat naa bàyyi xel bu baax lu mel ni saa mu nekkee lu mel noonu moo ci war a jiitu ni ma ko faral di wax sax mooy fondation jëf jëf ji mu sell nga jëm si borom nga fas yéene liggéey si borom képp rek rek dong dong nga xam ne xar bi dara su boobaa sa jëf jëf ku la xool xool même su fekkee xam nga dina xam ne nga xam ne ngi jëf ngir yàlla ci ci posté posté dañ ciy feeñ. dañ feeñ ci mel wala feeñ ci ci lépp lépp dañ feeñ ci teggin ci lépp lépp feeñ. dañ feeñ ci poos bi feeñ ci mooy jëf-jëf ngir suñu ndax sëriñ sëriñ si ñoo xam ne lu su ma leen mën la tënkal la sëriñ bi woote woote woon damay wax ne mooy loolu tënk la sëriñ bi woote woote woon mooy sellal ndax ni koy faral di waxee ne sëñ bi doon bi ngir ngir dem ba nga xamante bi seen yëngu yëpp yëpp yëpp yàlla képpale duñ benn jéego wala ñu dox benn wala ñu dox loo xam soo ko waxaan ki sëñ Tuubaa yar dëgg soo ko waxaan jox ma kaas ma daal mi ngi fas ci jox daal daal fas fas liggéey si sëñ Tuubaa ngi fas ci xolo xolo soo ne ko may ma naan may ma fas fas liggéey sëñ Tuubaa soo ne ko kaay gunge ma jëm fay mi ngi fas ci xolam xolam di gis gis mi ngi lay gunge gunge jëm kooku la ñuy wax ne garab garab kaweel moo tax su ko doon ne subhaana asra bi abdi baatu abdi jaam mu nekk jaam boo lu jafe jafe jafe moo tax moo tax suñu borom ñëw tàgg tàgg ñëpp ci alxuraan jaam la tàgg ndax am na ñoo xam ne bii euh, bànneex la ñu jaam suñu borom wax na ko afara'ayta man ittaxaza ilaahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ne yéen di sallallahu alayhi wa sallam xanaa gisoo gisoo ki nga xamante ne bii dafa jël bànneex def ko yàlla bànneex am na jaam yaakaar yàlla jaam loolu nag léegi dañu faral di waxee day ci biir mbir yi day dugg ci biir mbir nit ki topp bànneex am yaakaar na yàlla la topp wala si war a topp mën nit ki ma ngay jokk ak moom bu dégg ba jeg suba suba yaakaar naa mi ngi def lu baax fekk moom boppam lay jokk jokk ni muy jokkee boppam mooy kee daf ka jokk rek moo koy jokk soo kee ragoon rek laay baax daal daal ma ma ëpp kon kooku xam bopp lay jokk jokk soo déggee mooy lu dagg lañuy jokk jokk lu dagg lu taqale ko lañuy jokk jokk kon ki la dagg dagg jokk jokk waaye ki lay jokk jokk ko ku la bàyyi nga bàyyi nga ko yow da ngay fay njëkk rek waaye doo ko bokk loolu nag aada la ci biir aada lay dugg nga yaakaar ne yaa ci baax loolu lu mat a la la dafa bari lool nag moo tax sellal li ma koy faral di waxee sax mooy li gën a jafe ci biir kon ñu ñaan ma wàcc kàddu jox jox xaar mu continuer ñaan si borom dafa ñu sellal boo nga xam ne mooy mooy ruuxu jëf jëf nga xam nga bépp jéego ci def ci def mu nekk addi ji sell ji Sëñ Tuubaa na ko loolu moo ci mooy li nga xamante ni am solo solo euh, euh, bi dañuy wax ne jataay mooy tudd suñu borom tudd suñu borom mooy jàngale gën a ci yàmm suñu borom nee na wala dikru la at at tudd yàlla moo gën a mag nit dana ci aw aw ci ba àgg yàlla ci diggante bu gàtt moo tax taalib yi daan euh, ñi daan tërbiyee seen taalib sëriñ su bari daan tërbiyee seen taalib dañuy tudd la suñu borom tudd bari bari bari bari gisoo soo seen alxuraan saa bu waxee tudd yàlla rek day jëfandikoo baatu bari bari واذكر الله كثيرا وذاكر الله كثيرا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة maanaam saa bu tuddee suñu borom saa bu tuddee euh, tur yàlla rek dañuy wax lu bari bari te dañuy wax ne malaayka yi dañuy faral di wax dañuy wër wër bi nga xamante ni tudd suñu borom saa bu ñu ko gisee rek dañuy dikk tegal seen naax tegal tegal ba ci kaw asamaan wër leen di leen di leen dokkalante ñaan suñu borom suñu borom jéggal ñooñu suñu demee ñu wax suñu borom ne leen na suñu borom te suñu borom leen gën a xam na suñu borom gis nañ sa jaam yoo xamante ni nga dajal la jël tudd di la bàkk di la làngal su borom tagg jaam ñooñu daani jaam ñooñu dañu texee xeet ñu ne ko nag gis sañ fa koo xamante bi dafa toog ci wet rek rek moom dafa dafa romb rek daal toog toog waaye jitaa jitaa ñu toog jóg suñu borom ne ne malaaka yi walaayka laa yashqa jalisihum ñooñu day ku toog a ñoom sax du texee kon kon xasida yi suñ ko waxee ak alxuraan ji zikr la xasida yi tudd yàlla ngi salaatu ala nabi mi ngi ci ñaan a ngi ci istixfaar jéggalu si borom mi ngi ci tagg yàlla mi ngi ci tagg ci ci ci jugaat ci biir Sëriñ Tuubaa moo tax yoon wi nga xam ne xam bokk na ku bëgg jariñ ci xasida yoon gën a gaaw nga koy jàng di ko teewlu di teewlu jëwli sëriñ si te yàlla yàlla tax loolu bokk gën a gaaw ci may nit ki Euh, li mu bëgg ci xasida ndax da ngay dégg jóg sëñ bi ne xasida yi faa xas yuuxu tërbiya kullu xayr wa suyuuxu tarxiya sama xasida yi kawe na seen tërbiya kawe na seen tarxiya sëriñum tërbiya mooy sëriñ bi lay raxas sëriñum tarxiya mooy sëriñ bi lay yëg ci yàlla xasida yi kawe na ko léegi nit ki ne ci di jàng bu dee bu jëkk suba ngoon te moom mën a yàq kon dalay leer na yàlla des loolu des kon loolu des lan la war a léegi des nag mooy nem ko war a war a jàng jànge ak pas-pas ba ci war ci war am moo nekk lu des lu bare bare bare mas naa ko laaj wax nii ne ko waa léegi léegi lu tax ñu jàng xasida a yam mu wax na ko na pas-pas bi daal day ay leer leer kon nit ki fekkee pas-pasam baaxul li muy li muy def am nay leer yi waaye bi daay fas fas fasam moo koy baax baax loolu mën na ci mën na ci nekk ak at te du jariñ fekk li léegi fekk am na ko baax mi ngi mel ni tor yor yor tors nit am miir nekk nekk sa diggante ak la ngay ci miir bi la tors tors daa ngay loolu mooy pas pas bi daal sëñ Tuubaa wax ci tëj ci suba kon loolu loolu nekk na mat a bàyyi xel baax baax kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñaan suñu borom déwéen bu baax a baax